Allez, les comons Mythiculture Bougane Gueye Dany nee na dafa yóbbu sénéra ci yoon euh, ndax diirub li nu dakkal programme yi seen TV fenn lan ko tegul Alioune Ndiaye bu Pikini production nekkoon bala ngay digle ca ngay na fekk nga sangu ba noppi ndax sénéra kon ci boppam la leen war ñoom ci boppam defuñu ko kuréel gi nu duppee mbëbës dafa doy seen ndaw yanu jàppoon ni ki gaaw bi ñu weesu mujj nañ leen a bàyyi waaye kon du Fall ñu gën koo xam ci Malcom te mu jiite leen nee na loolee terewul ni dinañ wéyal seenub xeex cleaning day bi président Macky Sall sumb ni ki gaaw bi nu weesu ñu bëri ci askan wi nag rafetlu don ko bon nopi di ah, sàkku mujjantal am ci reportage bi tay urgence yi ni yóbbu ci l'hôpital yi ak dogal ba ci ministre Diouf Sar jël ah, lolé kon ak la ci askan yu xalaat mom la ni waxtane ci biile jotaayu xibar li mbokk ak lenen buñ ci nopé dinañ ci bolé yeneen i ponk ba ci biti rew tagat yaram soga dugg ci patch bi nu la aada ci san mu gën ci fës professeur major Diouf mi génné livre bu bess duppee ko dag nek fo xam si dañ fay bojjee po ak kon di ci wax aday séeréer Youssou Ndour ak super étoile mi yëngal kon si ses ci grand bal bi ñu doon samedi bi ñu wessu ba nopi ne dina may ab concert gratuit place de l'obélisque Nathalie Ousmane semben gan gi ak li yëglekaay xëy suba ak tay moy midi culture ñu ñaanalante Kader Lo Khader ci machine bi. Médiculture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Dior ngi naa mboolem ku ñuy noonu na gi ak euh, direction bu nag gannaaw ba ñu leen tëjee ab diir rek ngir ñàkk sàlloog euh, yoon ya nga xam ni moom la sénéra bëggoon euh, ki nga xam ni mooy seen ji di Bougane Gueye Dany ne dina yóbbu yëf ya fa mbir mbaxana doone benn ndax jàpp na ni waa sénéra ci boppam amuñu rek sañ-sañ wala yoon ngir ngir mën a daal di dagg seenu ko signal euh, loolee nag di ab mesure boo xamante ni si dinañ ko jël ngir lépp loo xam ni euh, doon na ay loraange ñu daal di koy rétablir na mu gën a gaawee. mbir moomee doxoon ci diggante Sénéra ak Sen TV Aliou Ndiaye joxe na ca xalaatam. moom njiital Pikini production nag daal dina ñaawlu bu baax lu ni mel ndax jàpp na ni euh, Sénéra ci boppam dafa rek daal di lajj ndax loolee du waru garam Aliou Ndiaye dañuy teelu ay kàddoom ci waxukaay Serigne Saliou Seck. publicité journal dañ ciy gis ay publicité alcool nañ régler problème boobu ñoom sàmmonte wuñu ak charte yi donc balaa ngaa wax balaa ngaa digle ngaay day fekk nga sangu yow ba pare donc ñoom sàmmonte wuñu ak charte yi te nit ñu imposer mesure bi pour man dafa brusque dafa brutal parce que nit tamit bu ñu nekkee ci réew xam nga ñun quoi qu'on dise dañuy employé ay nit tey imaginel groupe bu mel ni euh, Futur Média dañu dañu wane une certaine discipline rek ñu leen leen jaar leen fii ñu jaar fa mais ñoom li ñuy perte ci affaire bi est-ce que am na ku ko koy am na ku leen koy remplacer est-ce que teg nañ benn mesure boo xam bon suñ ne par exemple ñom biñu ñu mesure bi euh, directeur télévision yu bari lan lañ leen wax dañ leen lé may leen ñu ñu terminer suñu contrat mm-hmm. ñu né non déedéet du nangam ak nangam dañuy appliquer loi il faut que nit ñi bayyi pour man amna ñu bari ñi jang droit pour man erreur bi ñuy def dañuy dañuy jappé loi comme téré alcorane alors que loi ay texte la yu nit bind rek pour régler la vie en société donc bàyyi ni ni terminer seen contrat Hol après sen manque à gagner yooyu fan lañ koy nan lañ koy régler du problème hmm. mais à partir du moment où nous nee feug fëgg nañ seen loxo ci table bi du demee nono, dañ di appliquer loi bi tout de suite nañ ko appliquer pour tout le monde wala ñu bàyyi ñene ñeneen ñëpp def li ñuy mu nekkoon kàddu yaa Lune Ndiaye nekk taskatu xibaar nekk tamit euh, directeur bu Pikini euh, production ñu wax ci leneen ak collectif bi duppee seen bopp mbëbës dafa doy. Euh, samedi la ñu taxaw ca mbëbës ni benn woto duñu ko nangu mu fay tuur mbalit nee nañu mbëbës na mu nekkee doy na sëkk ba tax sax am ñu ñu ci tegoon loxo ci ñoom ñooñee nee nañ nag donte ni sax ñu ngi leen di jéem a xuqatal du tax benn yoon ñu deltu ginnaaw ci seen xeex bi la ñu bëgg rek mooy mbëbës googee ñu dakkal fa tuur li nga xam ne moo di mbalit mi dañ ciy déglu Mamadou Fall Malcom moom mooy njiital collectif bi lee ci waxukaayu Serigne saali Seck tey jii nii euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal nekk di membre collectif euh, Mbëbës dafa doy ñu nekkoon fukki nit yi nga xamante ni yàlla defoon ñu jàpp leen euh, leen en garde à vue lors de suñu rassemblement bi nga xamante ne ñi doon nañ ko def démb ci la cadre bi li ko war a doon dul mooy journée clean day bi nga xamante ni kii di président de la république du Sénégal moom moo ko décrété ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo dëkkee Malika Kër Massar Yëmbal Nord Yëmbal Sud Joal ñu taxawoon ne vraiment on est suñu mécontentement ci li nga xamante ni moom mooy

bi ñu leen yóbbee position Malika population Malika yëpp jug àndandoo jëm ca police ba ñu jaag naa leen fay jële yóbbu leen fi nga moom mooy fi nga xamante ni mooy géej waaye fanaan leen foofu noonu mais ne tey jii si bëccëg gi ay vers ñoom ñëpp bàyyi nañ leen kenn ku nekk jibbi nga cinq heures mais ñi nga xamante ni mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci plateforme bi ne ñu bàyyi dañuy continuer li nga xamante ni mooy suñu plan d'action ba keroog ñu si am gain de cause mu nekkoon kàddu yi euh, Mamadou fal ñu gën koo xam ci euh, Malcom jiite collectif bi lee di euh, mbëbës dafa doy ngeen di woy di déglu di Culture ci rajo King FM di moo jot ba tegal juróom-benni simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci clean bi nga xam si président Macky Sall moko initié Niki ki gaaw bi ñu weesu. loolee la xamle sax ni dal dina taxawal ab brigade bo xam day xeex lépp lu jëm ci walu ñak gi mbir mi ñu mel nak askan bi dal di koy rafetlu lool waaye nee nañ nañu ko top ba mu euh, waxu ñu rek ñu dal di koy tambalé ab di dal di ko fay dakal seen gis-gis Aminata Ba lañ ko ci micro trottoir lu euh, bien bu baax la de initiative bu baax tamit parce que vraiment réew dafa wara set xam nga désordre bi dafa bari xam nga encombrement bi si kaw talibé fep yooyu mom dafa wara dañ totalement waaw doy mi ñoko mom bu sété ñun la bu tilimee tamit ñun la ni wax nga xam ni képp ku fi ñëw tamit dañuy kontaan mais comme joxé nak ordre bobu pour ñu dëkk bi set samp fi brigade brigade dafa wara a gaaw a ñëw am suivi tamit lu rafet la ci dëkk bi lu ñu soxla won la ndax dëkk bi salté na salte bo xam né ne mënuloo ko nettali kenn bo défé sous région bi di nga xam ne ne réew mi mooy réew bi gën a salte ji yàlla désordre partout oto yi dañ ci war a def ay urine noire fi nit di sawee partout forum xeeti saw mbalit brigade boobu bu ñu ko defee nga am ay suivi mais def brigade boo xam ne du benn continuité bu def loolu tamit c'est pas la que c'est brigade permanente donc est que brigade boobu day continuer ba kaw parce que boo ko defee combien depuis vingt ans ngeen ñëw ñu ngi xeexal <laughs> ba léegi de toujours même problème te boo ko a gën a tilim a bëri mu taxawal brigade bi tali bi depuis jikoo ba mbalit bi ba kat-kat rafet ñoom ñooy premier mbalit si Sénégal parce que kat-kat euh, rafet yi taxaw si mbedd bi po mooy premier mbalit nañ ko génnee si tali bi boo si tali bi euh, ñax yi mun a génnee si tali bi parce que jaay doole ak sabotage moo tax mbalit du mun a génne fii mais boo taxee brigade bi képp ku saboté ñu saboté la réponse saboté mu nekkoon micro trottoir bu ñu Aminata Ba defalee ca diwaanu Pikine yegsi nañu ci reportage bi tey ñu jagleele ko dogal bi jëwriñ ji sàlloo wàllum wér gi yaram di Diouf Sarr jëloon. moom nag alxames ba léegi ñu ngi koy waxtaanee mu nekk nag nee na ñi nga xam ne dañoo ñëw ci urgence yi sonn lool bu leen kenn sàggane dinañ leen taxawu ca na mu gën a gaawee mbir mu ni mel nag askan wi rafetlu ko lool ndax jàpp nañ ni léeg-léeg ñooñee dañ leen di faral di sàggane ba ni mujjee ñàkk seen ko bakkan nanu ko topp ba mu sës di reportage yu Mati Dieng mel na ni feebar toll ci diggante dund ak dee dem hôpital ñu lay jaabanteloo léegi mu jóg fi dogal bi ministère de la santé ñoo ko jël tere lu ni mel Nafisatu ne dafa jot ndax keroog bi muy am doom dañu kaa baaganteloo ba mu sonn. keroog bi may am doom ba ma demee domini ñu xool ma ñu ne ma damay sañ ma xale fekk avant boobu dem naa nabi mat la mais duñ la laal dafa fees ma dellu si waat dominique ñu xool ma ñu ne xool ma ñu ne déggoo li ma la wax fii dafa fees duñ la jël ma jógee di fa dem sami pare ñu ne ma duñ la laal sama borom kër jël ma yobbu ma dantek sonon na trop trop trop of lamu mujjé accoucher nak la ndaw wax dañ la dul jël ni hôpital ngi la li ma wax na da nga di la soxna si mu di liggéey hôpital fan dal di ci gis boppam leen ndax leen fan hôpital bel. dama lay wax fan xam nga da ngeen di wax di nga xam licence loolu bu jël loolu la ñuy wax loolu bu jël licence dafa am déglu ma woon rek bu dëgg keroog dafa fanaan ñaari malade laa jël yoo xam ne am ñu accompagnant li ñu def yëpp man maa leen koy def dañuy ñëw buux la ko ba pare mën nañoo tombé ci ñëpp mel noonu te léegi yow bu ñu jëlu sa malade yow ngay expliqué di wax man nee naa ñun moom lu ñu waxal gaa dafa loolu la wax man ma askan wi ne ñoom li ñu bëgg mooy ñu jëmmal bi le ndogal idée bi rafetlu naa ko trop mais sama problème mooy ndax continuité dina ci am fii tam Sénégal la day bëri trop ñuy jël benn affaire mais du am continuité mais bu dee ne loolu mën nañ ko jël en charge mu am continuité idée boobu moom vraiment ñëpp koy rafetlu dañ ciy kontaan saay su ne ay nit di ñàkk seeni bakkan ndax ñàkk toppatoo ci biir hôpital yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu wérgu yaram ne ak matukaay yu yees yi su jeexul itam dina wàññeeku cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ndeye Mati Dieng hôpital Dalal Jàmm nekk ci Géejawaay jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili mbàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. ñu ngi lay fay soxna Kumba Ba xibaaru bitim réew dañuy dem ca Burkina Faso gannaaw at nag ba ab jéeya amee euh, foofe ba léegi nag ñi ngi xaar yoon defub liggéeyam. comité bi nga xam ne moom mooy xeex lépp lu jëm ci stigmatisation ñeel ay xeet ñoom ñooy sàkku yoon def liggéeyam ci mbir moom mu nga xam ne mu ngi xewoon ca euh, yërgu at rek gannaaw ba nga xam ne massa Moussa Kër na euh, kon njaboot yi nga ne ñoom ñoo ñàkk seen i doom foofu ñu ngi sàkku daal yoon indi ay leeral wax dëgg gi naka la demee lépp nag mu ngi dooree ci bi nga xamee ni faat nañu euh, ci benn fan ci weeru janvier atum 2019 ki nga xam ni moom moo nekkoon chef de village bu Yirgu mu ngi nekk nag benn gox bu nekk ci province bu euh, San Matenga nekk nag ay pël yoo xam ne ñoom la attaque bi ciblé woon maanaam ñoom daal la ñu bëggoon faat ci boobu la cong ñi ko def nag di ay groupe yoo xam ne nee nañu dañuy défendre seen bopp waaye nag dañ ci amoon jàppandalu yeneen i groupe yoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay ci xayma daal nee nañu officiellement lu toll ci juróom-benn fukki doomu aadama wala lu ko ëpp ba fii kenn gisu leen waaye nag buñ sukkandikoo ci membre yu collectif des communautés ñoom nag faatu procureur nag daal woon na génnee ab mandat dak wala ay mandat nee nañu euh, dem jëli képp koo xam ne laale nga ci ngir ñu déglu la waaye ñoom li ñuy naqarlu mooy ba fii fukki doomu aadama ak ñaar rek ñoom la police interpellé ca boobu boobule jamono ca Kenya base bu Simba ñetti doomu américain ñàkk nañ fa seen bakkan ci ab cong goo xam ne ñii di shabaab yi ñoo ko amal. muy bilan bi nga xam ne moom moo uh, tukkee ci cong googu nga xam ne shabaab yi ni nga ko waxee ñoom ñoo ko amal uh, ci kaw base militaire bi nekk ci bët penk bu réewum Kenya nee nañu nag bilan ba sax uh, jamono ji yokku na tey ji ci suba gi rek ñu ngi doon wax ñoom kilifa yi ni am na kon ñeenti terroriste yoo xamante ni sax nag faat nañu leen ak juróomi doomu aadama yu ñu ne ay complice la ñoom it teg nañ leen loxo. dimanche ak démb commandement bu américain en Afrique di Africom ñoom nag daal dinañ xam ni euh, lii di cong gi am ci kaw camp bu Simba kon def na ñetti victime yoo xam ne yëpp ay doomi réewi Amérique lañu benn soldat la ak ñaari contractuel yoo xam ne ay employé lañ yu ministère euh, de la défense ñoom tamit jëlee nañu ci ay gaañu gaañu Washington kon jamono ji daal dafay tuumaal ñi di islamiste yi ni dañoo maanaam ëppal la ñu def te xamle na ko dégâts yi di yàqu-yàqu yi autorité keñaan yi nag ñoom ci seen wàll nee nañu amul benn soldat bu fekk baax ci réewu Kenya boo xam ne ni ñàkk nga ci sa bakkan ca Téhéran nekk ca Iran kon dinañ daal di delloo njukkal wala sargal sax ki nga xam ne mooy Qassem Soleimani loole nag mi ngi am ci njiitalu ki nga xam ne mooy chef suprême kon cérémonie yi nga xam ne ñu ngi koy amal di def ay hommage day woy joor moom mi ñu koy defal di Qassem Soleimani ak ñi mu àndaloon di ay compagnon d'armes ñu daal di leen di faat américaine euh, bo xamné bi mom fa amone faut fait terrain waaye nag ci centre bu capitale ba tey jii askan bu bari mbolo mu tak ñom ñoo fa di teew ci suba radio nak ci France internationale ci jamono ju nga xamné guide suprême iranien mom mo jité jiite lay ñaan ñu def ci kanamu cercueil bi nga xam ci le chef des forces spéciales des gardiens de la révolution euh, Mom ca la nek gannaaw fatom nak mom général bi di Soleimani euh, parlement irakien dañoo sàkku dal ñu daal di fofu di force américaine ya ndax depuis buñ ko faatee euh, ci benn raid americain bu amoon àjjuma bi ñu weesu foofee euh, ca Irak kon moom Soleimani ba tey askan wa daal ci xiini mi ni lañu nekk kon tey fii la ñuy taxaw ci xibaar yi soxal biti réew jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram mi ngi noonu xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Ma Jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu Soxna Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. fay nañ la Papa Ma Jaxate Sarr kon tàggat yaram dañ koy doore ak fédération sénégalaise bu taekwondo mu mel ni yorin wa daal am na ñu génn di ko ŋàññ. mu di waa ligue yu Diourbel Ziguinchor Louga Dakar Kaolack ak Thiès ñu daal di booloo ci ab collectif ne euh, am na ay mbir yoo xam ne nanu ko yoree ci wàllum fédération sénégalaise tënk ko ci ab memorandum euh, bokk na ci nag la ñuy ñaawlu ñu ne ba ndëgëni si assemblée générale d'information guñ ko secrétaire général bu ligue bu Thiès euh, nekkit euh, coordonnateur googee collectif di mohamed Thiam yëkkati na ci ay kàddu ñu teewlu ko. dañ toog mu def benn seet ñu gis ne daal fédération ni muy doxee méngoowul ak chaque charte yu tëral dox ñu fédération ndax charte yi dafa ne balay bépp saison di tijji

amul dara li nga xam ne nii jël suñu si lii ñu toog gis ne kat président lii nga xam ne ni ñoom ay membre la buñ jëlee fédération léegi yow kat heure bu ñuy péncu président lii yooyu war nañu fay nekk président lii yi amul xibaar yi nan la fédération bi doxee ñu ne kat li nga xam ne nii weesu la xam nañ ko nañ oytu ñu si li nga xam ne nii leerut wala ñuy duggaat si saison bu bees bi yëpp leer moo tax kat ñu ñëw ne ñun ne

mi ngi noonee kon euh, moom mi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi di njiital fédération bi ñu tuumaal daal dina indi ay leeral ci wàllu woowu. Balla Dieye jàpp ne tuuma yooyee dara amu ca moom la mu ko jàppee sax mooy taxawaayu ñu bëgg a yàq liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def Balla Dieye euh, Balla Dieye yokk ci ne ñooñee sax la ñuy mbubboo seen bopp ne loolu la ñu nekkatuñu ko bu yàgg boobaak léegi Balla Dieye ñu teewlu ko ci jokkoom ak rajo King FM. c'est un groupe de personnes dirigé par quelqu'un Moi, def en fait euh, le tour des ligues pour dire c'est semer en fait le des problèmes il a commencé à Dakar Il a créer des tensions Il a dugg ligue pour créer des tensions que nous au niveau de la fédération nous avons tous les documents et nous avons aussi euh, chaque personne qui une ci tâche une ñu koy dérouler correctement mais c'est quelqu'un qui il a été battu en assemblée générale tey moo nekk nii di euh, fédération bi n'est c'est pas la première fois aussi président du futur est muy Ibrahima Ba noonu la doon fonctionnaire ak moom Fodé Sakho non la doon fonctionnaire ak moom avocat Satir euh, Satir Niang non la doon fonctionnaire moom donc ça veut dire que chaque président bu mën a ñëw ci taekwondo il faut que mu commencer genre yu nii genre attaque yu nii xam nga memorandum boobu tax mu gën a garaaw parce que boo ne ay président de ligue ñoo ko signé di def usurpation de fonction boo jëlee yenn président de ligue yoo xamante ni da nga jël seen ay cachet tapé ko signé ko xam nga loolu c'est très très grave te li ci gën a métti au lieu nga dégg ay président de ligue toog nii ñoom di témoigner di waxal seen bopp non non non c'est le secrétaire général de la ligue de Thiès moo fa nekk di wax koo xamante ni depuis six mois il était absent du territoire. Ils ne connaissent même pas les activités de la fédération. Depuis six mois, il n'est même pas présent au Sénégal. Et comme que train Ce qu'on va faire, c'est-à-dire que nous, on respecte les règles et on va continuer à respecter les règles et continuer à respecter les crédits. Réponse bu club bi Il ne parle de licence et assurance. Tu penses que une fédération sénégalaise de taekwondo activité on a fait 30 activités l'année dernière. Nous euh, avons mais commencer, commencé nommer, ñu nommé li une maison d'assurance solide pour assurer les sportifs, te commencé. mu nekkoon Balla Dièye di njiital fédération sénégalaise bu taekwondo ci tontu li mu leen jox. ñu daal di waxtaanee wàllu football ak coupe de la ligue kon ci njeextalu bés bi amoon nay jongante. seizième de finale yi démb lañu ko ndar képp Dakar Sacré Cœur AS Douane Casa Sport Guédiawaye football club euh, Sonacos ak AS Pikine mi daan jaraaf ci tiro bi ñoom ñoo mujj qualifié fekk fa euh, Kër Madior ñaari tali Entente Jeune Fatick jamono Fatick ak Demba Diop FC ñi nga xam ñoo ñëpp nag fekki génération foot muy champion bu Sénégal en titre jambar mi gàddu woon coupe de la ligue ni ki euh, daaw Tëngéej FC mi gàddu woon coupe du Sénégal ak CNEPS excellence euh, mi nga xam ne moo nekkoon champion bu Ligue 2 ñoom ñi nga xam ne ci tour bu njëkk bi dañoo exempté woon euh, ñoom nag ci ñoom la ñu war a def tirage au sort ngir mën a xam li nga xam ne mooy huitième de finale yi. ñu wax basketball ak Gorgui Sy Dieng ma ngay wéy di def ay jaloore ca NBA. moom pivot franchise américaine bu Timberwolves Minnesota daanaka jamono yi kenn mënu koo téye Gorgui Sy Dieng Euh, daanaka jamono yi mooy leader offensif ak défensif yu Wolves yi euh, démb ci guddi nag ci seen jongante bu ñu doon def daanaka bokk na ci jonganteem yu mu gën euh, wane boppam seen diggante Cavaliers yu Cleveland yi daanaka moom gi si Dieng dugal na ñaar fukki poñ ak ñaar am fukki rebond ak ñett juróom-benni passe ak ñeenti contre ci ñaar fukki simila ak juróom-ñeent yi nga xam ne jongante na ko ci googee match ndam li nga xam ne nag seen équipe bi di Minnesota am ci jongante yi ñu mujjee am ñetti ay ndam la ñu ca jëlee mu mel ne jamono yi moom góor gi Sy Dieng moo boot club bi di Minnesota Serigne Saliou Dior Mbodj fii la ñu yem tey ci xibaaru tàggat yaram cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi xibaaru caada yu wér te wóor dañ koy tàmbalee wax ci livre bi professeur Madior Diouf fesal ma ngi ko daal di duppee dàgga dàgga nag Serigne saali mooy fa nga xam ni fa la jigéen ña daan bojjee a soq moom la daal di duppee boobu boobulee mu génne nag di ci fësal aada ak cosaanuk séeréer mu nekkoon xew-xew boo xam ni ñu bari woon nañ ko ca ku ci mel ni sax Moustapha Niass wala sax Ahmed xalifa Niass dañ koy teglu moom professeur Madior Diouf ay kàddoom ak Pama Diakhaté Sarr ci séeréer yi moo di barab bi nga xam ne ci kër gi foofu la ñu bojjee ci biir ci biir kër gi alors que dagga bi ci ci kër gi lay lay nekk dañ ko daan def foofu ak itam boo demee yi nga xam ne ndox ndox ma fa ne dañ ko doon def mu sori kër gi loolu pour <coughs> bu kii avait incendie bu amoon lakk waaw lakk bu amoon ci kër ci kër gi moom dagg baa ngi fii ci ci kër gi bon bon nag li ñuy dundee du lakk bu mm-hmm. dee

Euh, jigéen nag du fa daan dugg. mu nekkoon profesor yi professeur don Diouf doon euh, faram-fàccee livre bi mu génne duppee ko dagg ñu wax kon ci euh, roi di mbalax Youssou Ndour ak concert bi mu doon amal euh, ni ki gaaw bi ñu ma nga ñu ko nag grand bal mu ko ay fansam at mu nekk mu di ko def amalon ko nag ca CICES askan wi teew fees fa dell ngir rek daal di ànd ak seenu fans ngir bëggee moom nag Youssou Ndour na ni sax dina daal di may ab concert bo xam kenn du ca fay dërëm ngir rek jégg jéggalu ay sam ci ñen ñi nga jot nañu ñew waye mu jewu ñoo duggu ñu teewlu leeral geeg nday mati jeng grand bal samedi bi ñu weesu la woon ca sises yu sundur way ci kanamu mbolo mu takko takku le roi du fansam yi ñew te jotu ñoo dugg ndax salle bu fess je tenais personnellement à m'excuser ci képp ko xamé ni tay mëno woon accéder ci bir CICES. ñu ngi koy jégalu bu baaxa baaxa baax ak képp ko xamé ne dugg nga sax mais ni nga waroon démé demeewu ko macha allah maa ngi sant yalla bu baaxa baax di leen gëreum jërëjëf ndax je suis très touché par li nga xamé mo am suma diggante ak yeen sincèrement ñu ngi jégalu bu baax. morceau bi ñëpp doon xaar di nay way kat bi né laata laata koy way faaw mu setal boppam ne moom nayul firnde gi mooy dina maye concert gratuit ca place de l'obélisque ci kaw kii di Aly Ngouille Ndiaye yoreel ko kaaraange gi. ba pare nag di leen wax ne que damaa tëgg morceau nay aha aha dégg naa commentaire yëpp jarul commentaire lenn daal laa leen bëgg wax man nayuma ma gars yi dañu bind si internet bi ne waaw moom moom kañ la gëj a def concert gratuit xam nga tontu du forox weer bi place de l'obélisque su ñu jëlee toutes les dispositions de sécurité dinaa tëgg concert gratuit <laughs> Youssou Ndour cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ndeye Mati Dieng Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalu Ousmane Sembène moom mi la nag mi ngi juddu ci atum 1923 kon am na juróom-ñeent fukki at ak ñeent bindkat bile nekk nag ku ñu ràññee lool ci cinéma euh, rawatina cinéma africain euh, moom sax la ñu jàpp ni daal considéré nañ ko comme père bu euh, cinéma africain am nataalam Pama Diakhaté Sarr moo ñu koy defal L'art est politique. sans kàddu yi di gën a dëggal moom gi mu moomoon boppam moom Ousmane Sembène ci dund lii di aaram ci ni mu ko yëgee moom mi juddu ca Ziguinchor ca weeru janvier ni ki weer wii ñu ne ca atum 1923 dafa boole woon doon bind bindkat réalisateur acteur ak scénariste am fulam ak xam la mu bëgg moo taxoon ba moom Sembène bëri na ay yoon yu nu ko dàqee ca école rawatina ak ci atum 1936 ginnaaw ba mu lànkalee directeur école am lii di jàng làkk bii di kors bëri na ci ay mbindam wala ay film yu mu réalisé yoo xam ne la mu dund la cay nettali bokk na ca téeréem gu njëkk bi di la docker noir mu publier ko ci atum 1956 mu cay nettali la mu jot a dund ca ba muy doon docker ca port bu Marseille filmam yi nga it ràññee nañu leen loolu yu ci mel de camp de tiaroy ak ñay yi nga xam ne personnage yu tirailleur sénégalais yi fës nañu ci loolu mënuñu ko tàggale ak la mu nekkoon tirailleur ci atum 1940 yi jamono yooyu mu amoon ñaar fukki at kepp Sembène Ousmane doonoon na it koo xam ne la askanam di dund soxaloon na ko loolu ca la mu daan def. j'essaie de m'adresser aux hommes seulement pas de chez moi mais d'ailleurs des problèmes qui nous préoccupent tous le problème des pays en voie de développement le problème du passé du présent et d'avenir l'avenir. téereem bii di les bouts bois de Dieu di nettali grèvuk cheminot Dakar Niger yi ak filmam bii di le mandat di ab comédie buy xaxar tubaab yu ñuul yi nga xam ne fës nañu bu baax ginnaaw ba Sénégal moomee boppam loolee bokk ci li koy firndeel xalaa gelwaar Fatkine ak Molade bokk nañ tamit ci film yi gën a tax ñu ràññee ko fépp ci àdduna bi ba tax sax ñu koy woowee le père du cinéma africain ci dundam moom semaine Ousmane jot nañu ko jébbal raayo yu bëri ba keroog bés bi muy génn àdduna juróom-ñeenti fan ci weeru juin atum 2007 ca Yoff moo amoon juróom-ñetti fukki at ak ñeent jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr doon defal nataalub Ousmane Sembène Midi Culture ñu jàll ci gan gi mi ngi noonu ganu xibaar yi tey joor ñuy dalal Abdou Guité Seck moom doomu ndar mi nag yàgg wane boppam lool waaye ab diir gëj nañ koo gis ci scène musicale bi moo tax nag mu dellusiwaat daal di génne ab album daal di koy duppee coup d'état Abdou Guité Seck daal dina sekk waxtaan wu yaa ak Ndeye Mati Dieng ñu teewluwul loolee

Euh, li nga doon liggéey dafa mel ni album la nga tuddee ko coup d'état lu waral coup d'état waaw coup d'état parce que xam nga dañu toll ci société bi nga xam ni euh, euh, la trahison dafa nekk ak l'infidélité dafa omniprésent ci fànn bo gis rek dang koy gis motax tax euh, ñu ni euh, foog ñu euh, def ci way wu reuy tudde ko coup d'état dañu gis né Abdou Guité fan yi passé da nga jël jeune yi di and ak ñoom ci way and nga ak Marie Ndiaye and ak Ren and ak Bril lan mo waral lool ndax yow da nga japp né mak nga bo xamante ne da nga wara accompagner ndaw ñi ñooñu sumay rak lañu sumay rak lañu bien que suñuy génération dañu dugënté parce que man peut-être des fois daan ma jox at bu wess mais damay ndax té tay bu ñu némé ko mandarga bobu ci sumay

très éphémère kon faaw ñu rafetal ko yaatal ko ngir ku ci nekk mën ci jot gam Abdou da ngay gis waykat yoo xamante ne bu ñu toogee stand by rek dootoo déggati seen way mais ku ci mel ne yow bi nga génnee sama doom xam nga loolu yàgg na nga ñëw génne yu ci mel ne Alaaji neraw na ak yeneen way yooyu ba léegi boo duggee sur le net da ngay gis en 2019 wala en 2020 nit yi di ko déglu lan moo waral loolu soin la booy jël sa bind wala. waaw c'est un choix c'est un choix d'écriture euh, man su may bind en général li may njëkk xalaat mooy jéem a bind wayu saa su ne te di éviter di way euh, wayu moment donc vais éviter de way pour le moment mais je chante pour le temps donc nga même buma fi nekatul euleuk way wowo. ku ko deglu rek dana am lu def ci yow donc way ci aussi diaspora parce que je woon ci kaw way Je moodu yi ci walu diaspora bi ni len lu waral bu nu dem mu ñu mel ñu ni mbugal te deewagunu te ba tey sunuy doom a ngi dee ci géej gi. Euh, lu tax bokkoo ci artistes yi nga xamante ne dañuy xëccoo genre waneewu ay song fu mel ni grand théâtre wala song ay public yu rëy juste pour waneew parce que tamit ku xam euh, doomu ndar tamit xam ko ci ci bëgg lu rëy lu tax Abdou wanewul loolu ak tamit euh, lan mooy sa ay sa ay mbébét ci ñëwaat bi nga xamante ni ñëwaat nga ko ak album bi di coup d'état. aujourd'hui si l'occasion se présente et que les conditions sont là pour ah waaw waaw pourquoi pas ñu <laughs> dal di dem ci ci ci ci grand théâtre dem Zénith dem fu fan ak fu mu mën a ndax euh, yu mag ci aduna bi grand théâtre ndax Montre Jazz ku ko wax rek Phil Collins and de Herbie Hancock body Guy Carlos Santana ça c'est des monuments de la musique hein wax euh, dem Olympia hein dajé fa ku melni ni Youssou Ndour kooku da ngay da ngay da ngay da ngay daal di sant yàlla gëm naa avec l'album coup d'état incha allahu rabbi daanu euh, daanu dem fépp fu nu yaakaare wëri diaspora bi defal len ay tournée hein def ay dîner de gala def len ay concert defal len ay soirée en tout cas le rendez-vous est donné ça va chauffer incha allahu rabbi avec coup d'état ñoo ngi lay jaajëfal mais man ma lay jaajëfal amone mbégte dalal la tay ci man le ëppee je vous remercie dëkk bi le ko fi xaatle danga yennu ca naaj wa jaajëfal nañ ko baax ndey Mati Dieng mi di culture ñu jàll ci yéen a kaay yeeg Serigne Saliou Seck politique ñi ko xam dëgg dañ ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ne yéen a bokk làng gi la tax ñu wax ko moo di ne ki nga doon xeexal ba ñëpp doon leen àtte démb tey mën ngaa xëy nekk ak moom xarit ba ñëpp yaakaar ni seenub ànd dootul jeex l'observateur ne wax ji ci seex Yérim sekk wax takk la ci bu kenn mënul dindi ubbil yéenekaay bi journal uri 15 angle corniche bi ne Cheikh Yérim Seck Aïssatou Diop Fall moo ko dalaloon ca télévision Futurs Médias mu yëkkatee yoo xam ne si faaw mu jur werante ci réewum Sénégal ndax nag dañu njiitu réew mi di président Macky Sall ak njiitul parti réew mi di Idrissa Seck ñoo ngi dégg diggante te it réeroowunu benn yoon Cheikh Yérim Seck yokku ci ne mbooleem gaa yi fare ci ku jégi Idrissa Seck képp la ci président Macky yaakaar ni mooy ki ko fi mën a wuutu bu fi jógee taskatu xibaar bi yokku ci ne bu fekkee gaa yi faree ko moom ñeent la ci président Macky Sall xalaat ngir ñu remplacer ko muy Mansour Faye Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Omar Anne wala Mouhamadou Makhtar Cissé taskatu xibaar bi defi chronique ne wax ji mu wax nag lu leer la teyit fu wóor la ko teg ndax moom du waxantu mu yokk ci ni na ñëpp bàyyi xel ni wax ji mu wax mooy ñi nekk ci xelum président Macky Sall ngir ñu wutu ko fi beus bu fi ko Ousmane Sonko ci las yene kay melni ko nan kon gaño ñe baye bo ñu wajal ndax nak président Macky Sall defi jóge atum 2024 jitul Pastef ne xamna ni président Macky Sall dina defi taba taba ba bok ci yooyu élection waye nak baye bo mu leer ko ni du ko fi téré jóge ndax nak beus buñ ci agge dinañ ko daaneel jël bo xam ci aduna sépp mom la nara ciow Sonko ne te bo booba turbine yene kay ne Ousmane Sonko kay yamul fofu ndax nak neena nguur gi fi nek nu nek def nañ ko ngir yàqub deram dem nañ sax ba ci ay kilifa diine dinan leen Sonko ab terroriste la te beus bu ngeen ko fi fale màggal ak gàmm moom bay boo ngeen fàtte ko ci mim réew ba noppee jaar ca beneen bor nan leen xale yu jigéen ñi ba ci nañuy soloo ko nañuy demee soirée bés bu nu falee Sonko lépp dinañ ko fi jële njiitul Pastef les patriotes ne loolee wax ju ñaaw la teyit kàddu la yu amul benn bopp amul genn ndax nag moom tal na leneen lu dul di lijjanti mini yu xale yu jigéen di sol ak ci soirée yu nu war a dem Sonko ne li leer te wóor moo di atum 2024 président Macky moom dina leen abal les écoles las ak su ndax na président élection présidentielle yu ñu ciy amal mu nekk ca candidat ak mu ban caa nekk na ñëpp jàpp ni dinañ ko ca daan jël bu kenn dul fàtteeti loolu lépp nag waxi Ousmane Sonko la moom Ousmane Sonko wax rek lay liggéey Maodo Malick Mbaye moo ko wax wax jàng ci biir Vox Populi njiitu anamoo ne Ousmane Sonko mënoon nañ koo tabb mu nekk ministre de la parole ndax nag wër di wax rek la man waaye Benno Bokk Yaakaar ji yokk ci ne président Macky Sall moom li ko sonal bokk na ci kaa ñu bëri ñi ko wër te ko benn njariñ laatu bi ne ñi wër président Macky Sall bokk na ci ñoom Aminata Touré jiitu njiitul conseil économique social et environnemental ci biir journal des médias bi ne waxi ñetteelu mandat ji wax la joo xam si dafa teel te it yi teelul njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall tax yéen kaayu des médias bi gis ni mimi def na ni Macky def maanaam duma ni wii duma ni non les échos nee na non la askanu Sénégal wax président Macky Sall keroog samedi di gaaw bi mu doon amal journée lancement Sénégal propre yéen kaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne ndakaaru ba ci biir réew mi bu weesoo APR ak ñi leen di jàppale amul kenn ku génnoon wéttali leen ci set setal bi nu doon am amal le quotidien na dëgg la journée Sénégal propre boobee ay politiciens rekk ñoo fa nekkoon tax yéenekaay bi jàppee ko les déchets d'une journée le soleil ni moom gisul loolu tax yéenekaay bi réewum Sénégal bi xëy fesal nataalu njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall bu mu yore peel def ca mbalit di ko tuur ci ab brouette boole ca dinu xamal ni président Macky Sall amal na mobilisation bu rëy te nee na weer wu yàlla sàkk dina ko amal Les Échos ne président Macky Sall kay def na la ko war ay meeram rawati far ak moom ñoo deful la leen war président Macky Sall ne li wóor te leer moo di ne mbir mi nekkul mbirum politique te mbir la moo xam si day jëmale réewum senegal kanam ba tax ñàngal jàpp ni ña koy wan gannaaw mbir mu ñaaw lanu def li ñaaw te daw yaram grand place nee na ca benn dëkk ñaari gaar di Cees la xewee benn soxna buy woyoo ci turu mat leen Ngom moo fa am ñaari seex gannaaw ba ci la ñàkke bakkanam li ko waral yéenekaay bi nee na chauffeur ba yore ambulance ba dafa demoon tool jaajëfal nañ ko baax Serigne Saliou Seck ci yéenekaay yu Midi Culture Serigne Saliou wàllu musique la ñuy tàggatoo. journée Sénégal propre bi président Macky Sall initié ni ki gaaw bi ñu weesu moo sabab ñu andil leen tey Youssou Ndour ak Cheikh ci woy bi ñu ànd duppee ko set. ñu teewlu mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci midi culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj jaajëfal naa la baax a baax Seydou Saliou Seck jaajëfal mboolem ku ñu doon bàyyi xel ci 99 point 4 ak ci 3w point king fm point ñel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul Khadr mi fare woon ci ah, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wóoyal king feeling lu mooy lolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.